abonnez am na nag ñu mel ne def leen a desee doy waaye kon nag lii ngor mooy ku li Sëriñ Tuuba indi doy dëkkam bii nag waroo feeñ da ngay dem ca sa dëkkub cosaan ba nga ba nga fekk baax ndegam am ko cosaan nga dem fa nag woote fa la nga fay woote ba xam kenn dana la fa fekkam déet wala nga def ni sëñ Touba defoon dem ci digg màndik mu dara nekkul nga andi yow dong di gor ak ak ak dajale ka mbaar woote fa la ngay woote ba xam kenn dana la fa fekkam déet nit ku defar mbiram ba mu jag mu seereel ko boppam di ko doxal fukki at ak juróom ci njaareem lépp mat bàyyi fi ay doom bàyyi fi deret bàyyi fi ñoom defar bàyyi fi ay mbindam lépp wér sëñ bi dafa leer dafa am foto nga di ko gis xam ne nii la meloon gis ay mbind ne moo bindoon lii yor ay kër ne moo dëkke woon fii jur ay doom ne moo juróon ñii defari dëkk ne moo sos dëkk yii lu wére noonu amut ci àddina ñi fiy dégg ñëpp des leen di dégg waaye lu wére nii kenn gisu ko kon loolooy sëñ Tuubaa daqool abdullahi wa huwa ahmadu xadima man sumaado muhammad Abonnez-vous sur Canal MS 23 TV. Abonnez-vous sur Canal MS 23 TV.